na di sangub sang yi yéena di jiital donga yi am ngeen di dem sëriñ tey moo fi gën gannaawam it moo gën sëriñ si yéena gën nag seeni kem bég a lii fàggu sax mayewu ko ite juréy mayewu ko pexe mu rëy mayewu ko mbay du mayam nawet bu jag ku yàlla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xam ne ak baaxama nag yéen gënub sëriñ ku ne yéen a gënug murit ku ne sëriñ bu nekk xam na ni yéen a gënu nitam bu dog asaka daala ke sarax la donga daa boole di jox ab sëriñam te di ko wax sëriñ bi maaka mata yëg bennub sëriñ mësula am ku koy joxug juram mbiram lu dul sëriñ bi ak ñooñam ku wedd lii mata alak sëriñ bi daala masa am ku koy joxug juram mbiram di aw ndigal di wut ngërëm di boole guddee ki bëccëg jombu ko ngir def na lu kenn deful te daj na it lu kenn dajul te dem na it fa kenn demul ba ñëw ñuy door a jóg ku jóg di daw dootoo ko jot ku waru fas dootoo ko jot ku war saxaarit doo ko jot fa mu ne yàllaa ko fa teg ku wax lu dul amul moroom te fa mbiram jébbal ko moom aw ndigalam def ko boroom yàq na fen runge tagak yàlla nu boole nun yërëm faw te may nu ngërëmam tegal nu ak mooy ndigalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg salaamun aleykum mbàkke sab gi walay nuyu kuréeréwu turam nag Babacar moo di aw turam gërëm naa la bég naa it ci say jëf te bég ci yow te sant ñi lay yaakaar a kay wut ci yow ngërëm ña niy dégg ak mboolem ñu ni seeru yaa ci gën ñu rëy ñañu daa waxtaane sàkk nga seeni kem te tiijaana kub xaadir ku nekk fi war di ñëw di suufee ka barkeeloo ka dénkaane ay mbiram dangay defaral nit ay mbiram boo ko dul defar nga wàcc mu dem yow doo ku ñuy bone fig ronam saxaaruk ndigal yaa koy dawal ku la jox mbiram nga jàpp ko teg koo xam ni xel mënu koo xalam ku dugg ci yow mii dem ku duggul ci yow du dem ndeyow daala fi yóbboo ka dem yóbbu noo ki ndam dugal nu ci deeseem ak sunu yéere yépp ak kuréel yii nu àndal yépp di ite daal di dem bu kenn mar bu kenn xiifit bu kenn mooy bu kenn tilim ku nekk na sax ci cant tey jëm kanam kanam bu kenn gàtt fan fan yépp nay gudd ñépp jub bu lëf metti nit nun may nu wérug yaram na mboolem sunuy fan gudd mboolem sunuy jëfit na sedd sa xol bi guy nuy gaayu am xoram na étéy xol yi ak jur gi jëm ci yow ba lépp ne ku nekk de sew turam na it tey yépp ak xol yi ak jur gi jëm ci yow ba lépp ne takka jee ku nekk desewu turam ku lay romb tey jii jëm ci kenn lu muy wuti xanaa dof ndeyow yaa saytu mboolem lu ñuy wuti yësal naa fi yow bég naa ci yow jekki naa fi yow te doy nga ma doyloo naa la nee naa la nekkati ku yow te baaxum xel dalay sant yam ci yow te jox lay mbiram ndax yow ku jóg yaa ko yëkkati laxas naa la man ab tànk ndaxte lu man di xew ku te góowul ak yow mbàkki dee fu ko dammute.